mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku ci ci santam. vous Vision. di leen jaajëfal bu baax a ci partage ak abonnement yi discours historique bi nga xam dafa jëmmal rupture bi sur le plan international bi nga xam président son excellence Bassirou Faye def cérémonie des olympiques Ce mu discours bo xamné dina rester gravé dans les mémoires et dans les annales le président boko xolé de dafa am ñet yoy gis ci mom muy charisme Abdou Diouf fitu Abdoulaye Wade ak vision du président Ousmane Sonko motax bénédiction pour le Sénégal ñu am président Vous menez son excellence le président Bassirou Diomaye Faye Nabi Vision mu am lu mu wax lu am solo les énergies fossiles ndax pour nous comprendre les énergies fossiles nous avons pétrole pétrole gaz ak charbon tous les dañoo bëgg utiliser climat bi moo tax bu ngeen déggee ñu naan ay COP 21 COP 22 COP 23 ba COP 28 bi passé dañoo bëgg utiliser climat bi pour tere ñu ñun africains yi ñu njariñoo suñu pétrole ak suñu gaz ndax nee nañu ay énergie lañu yoo xam ne dañuy polluer àdduna bi kon il faut que ñu arrêté di ko exploiter maanaam ba nga xamee ne ñoom jëfandikoo nañu pétrole bi développer seeni réew jëfandikoo nañu gaz bi développé seeni réew ak charbon bi defar seeni industrie ba nga xam ne ñoom jekk nañu léegi nag nee nañu ñoom dañoo bëgg léegi tere yeneen dëkk yi nga xam ne yàlla may na leen pétrole ak gaz pour que ñoom ñu mën a exploiter seen pétrole ak seen gaz pour ñoom aussi ñu mën a développer wu defar seen industrie ndax nasaraan si moom dafa jàpp ne moom rek mooy nit waaye ñeneen ñi duñu ay nit ay mala lañu. Naby Vision. ba d'ailleurs bii passé Arabie Saoudite dafa lànk moo tax président Bassirou Diomaye fay ne leen yéen mënu leen wax nañu arrêté exploiter gaz bi te yéen charbon bi ba tey yéen a ngi te charbon bi moo dàq polluer yeneen ñaar yi tey États-Unis lu muy exploité ci charbon kenn xamul nu mu toll te kenn ñemewu ko ngaan ci ñoom léegi nag ngeen bëgg a ñëw ci ñun africains yi nga xam yalla yàlla nañu pétrole gaz ngeen ne ñun buñ ko exploité neen leen loolu mënta ne. beneen bi ci top président Bassirou Diomaye fay nee na leen ni ngeen tënkee aduna bi ci Nations Unies au lendemain de la deuxième guerre mondiale nee na loolu c'est dépassé ndax Nations Unies moom mooy organisme boo xam ne maanaam amul équité amul justice ndax munoo jël loo xam ne ñëpp a ko bokk. nga tànn ci juróomi réew ne leen yéen am ngeen droit de veto yéen mun ngeen bloquer programme bu leen neex processus bu leen neex am ngeen droit bloquer ko waaye ñeneen ñi amuñu droit boobu tey réew bu réew bu ko ci neex ci ñetti ci juróomi réew yooyu mën naa jóg ni li ngeen bëgg a def man d'accordu ma te bu nee man d'accordu ma mënatuñ ko def day bloquer processus bi Naby Vision fàttaliku leen guerre en Irak Les États-Unis ont dem créer guerre Irak Les Irak Nations Unies dañoo lank. les États-Unis dañoo jóg ne ñun suñu en ko ci dañoo dem def li ñuy def kon ngeen gis ne ci bir Nations Unies boobu amul justice amul équité Motax président Bassir Diomaye ne len lolu c'est dépassé que ñu tënkaat aduna bi

président fait un discours remarquable remarquable discours bu bari Un discours bu ànd ak responsabilité le président il foofu mu ne sunu dëkk yi nga xam ne ñun am économie faible bu ngeen gisee ñun sunu développement compliqué maanaam dafa am ci seeni entreprise yi ñu ngi ci sunu yi di opérer Naby Vision te du ñu fay impôt li ñu war a fay impôt ñu wax na leen waxu évasion fiscale montage yi nga xam ne yenn entreprise yi ñu ngi koy def ba ci entreprise bi nga xam ne mu ngi exploité zircon bi au Sénégal entreprise boobu dafa ubbi beneen entreprise boo xam ne moom lay jaay zircon bi maanaam yow nga am sa entreprise créer beneen entreprise boo xam ne yow sa entreprise A day jaay zircon bi sa entreprise B. waaye liñ koy jaayee maanaam tarif bu néew la koy jaayee bu ko defee yow bu ñu la nee impôt nga ne man awma bénéfice kon montage yooyu entreprise tubaab yi def ci réew Afrique yi ba tax duñu mën a fay impôt président nee na leen loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne moo suuxal réew Afrique yi te loolu war nañ ko xoolaat président nee na leen bor bi nga aussi bor bi ndax bu ngeen pays africains conditions yi ngeen di ak France wala États-Unis wala Italie wala Grèce même conditions. yi parce que les pays africains donc dañ di conditions yu metté metté metti néna tamit nekk na loo xam du dëgg du son excellence discours bi mu mu nekk benn discours de rupture mu def avec beaucoup de simplicité def ko dans le respect def dans la grandeur d'esprit ndax la ñuy la relation entre les États dafa am langage diplomatique boo nga langage diplomatique

pour tenir ce discours et je sais qu'il a eu ce courage ndax xana ñi ko xamul yag naa leen ko wax nee naa leen lépp lu ngeen di ut ci président Ousmane Sonko mu sur son excellence le président Bassirou Diomaye Faye son excellence président Bassirou Diomaye Faye bu leen ko xool ni rek mu yaru nekk nit ku baax nekk nit ku oyof ngeen yaakaar président la boo xam day am sentiment ci lo le dafa jëm sur la gestion des deniers publics de l'État président melul ku xam président melul depuis ba nek inspecteur des impôts c'est un homme qui a lutté contre la corruption c'est un homme qui a lutté contre l'illicite et il a été intransigeant ci lolu té ni mu fas yéene au Sénégal Il ñu dem ba ci kanam lépp dina leer képp koo xam ne tudd nañ la ci détournement di nga seetal sa bopp wala yondal sa kaw di remercier di rendre hommage son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di wax ne yëkkati nga drapeau Sénégal ci kanamu àdduna bi yëpp Sénégal dëgg la ci superficie réew mu réew mu ndaw la waaye ci diplomatie ak ci politique réew mu mag a mag la